très bien léegi sénégalais yéen may déglu bu baax aji maas dafa dem ci laay fu sokono stress mu ne mu ne aji maas dafa foo déggal mami Cobra dafa foo mami Cobra dadaan jóge dakaar di ñëw ba fi nga xamante si nii moom mooy euh, da daan jóge Thiès di ñëw ba fi nga xam ne moom mooy këram dakaar yaa ngi dégg léegi soko ne ko yemoo woon foofu mu ne di def lan di def lan maanaam loolu leen bëgg a wax mooy mami Cobra da daan jóge Thiès di ñëw Dakar pour cagatu nee na nag loolu la ko doon soo ko nee na loolu la ko Adji doon wax Adji Mass tey ci appel yi weddi na ko ba mu set wecc pendoo Guissé nee na dafa juum léegi nag yéen ñëpp déglu ngeen li Adji wax déglu ngeen tamit li nga xam ne Pendo Guissé wax na ko est-ce que déglu ngeen ma bu baax ñoom ñaar woo naa leen ay appel ba enregistré leen ngeen déglu Pendo Guissé lu mu wax. ngeen déglu li nga doon teg noonu da doon tàggatoo rek na sa live. su kii dama dama wuy ma damay tegaat lépp enregistrement yi ma enri yi ma enregistré Adji ak yi ma enregistré Pendo Guissé moom lay teg en direct adduna bi di dugg di dégg après Bambi doog a ñëw. exactement mu jeex tàkk lu waaye mën na nga wax waaye ku ma ci wax wax boo xam ne waxuwul barki Seydina Muhammad billaahi wallaahi wa taalaay xolal comme li ma waxoon rek loolu laay wax du ma nangu benn xale bu jigéen bu toog sa yow baaraloo nga dugg duggal sa loxo sama sëy du ma ko nangu loolu moom du ma ko mayu ma ko mindee yàquma deru kenn mais damaa bëgg ñu génn si ku toog gaar waale ma da nga maa ñemewul mais boo ma ñemee da ngay tudd sama tur lan moo xew man jeeg dina ma yónni benn bërëb ak Dakar people lépp ngi ñëw sama kër léegi léegi nii léegi léegi léegi léegi léegi nii bu leen bu ay wari ndax man kenn duma xeexee te kenn duma def yatukaay benn xale bu jigéen du toog fi mu toog di tugg man sama programme barke salatul fati man léegi nii maa woo Dakar Buzz maa woo seen people léegi ñu ngi ñëw sama kër maa ngi dem léegi léegi nii barke Xalifa Malik dama ne déggoo lu ma la wax sama sëy bi laax dama ne kenn du ko laal man soo ko def maa parce que jotuma ci awoon laa nekkoon ci suba ba léegi ma dem Tiwaawan ñëw bi ma yegsee ba correctement Cambérène ma jënd connexion ma dugal ma gis ñëpp ñu bëri di ma woow lan moo xew man mën ko lan moo xew ñu ne ma da nga ak Mamy Cobra may la Mamy Cobra jotewu ma ak moom dara yaa mu toog ci ci ci kii bi di ma gaaruwaale te jotewu ma ak moom dara mu sànni ay taraagam di gaaruwaale anyway de toute façon man moom du ma ko tontu ndax du ndax du ma tontu yooyu léegi nag pour leeral sama cas ak Mamy Cobra sit yaa ngi ñëw sama kër léegi nii man ma tuut teg ko ci taabal ji mu jeex wax ji jeex sénégalais yi xool nag kan mooy wax dëgg ci sëñ Babacar laa jóge su ma tegee foto sëñ Babacar su ma waatee ni barki sëriñ Babacar si maam ko am na génn sama sëy bii su ma ko waxee non non non non yóbbu lu waroon a leer lu baree bari dina leer dara jay Moustapha na ci génn wujjewuma ak moom tey wujjewuma ak moom ëllëg na ci génn tout tranquillement kon da yow xam nga la nga war a bàyyi benn gisee ay nit di wo dila di sokono ss wulu laa wo ci laay fam nga teg laay direct nan da ngay wax déggoo ma mi may ma ma rek may ma ma daaneel rek may ma rek ba pare nga wax waaw dag may may dag may may ma après nga wax soko wax sokono ss modern life, live mu ne ma ko message pendu ko yu fayda bu ma la di dina enregistré dina dugal ci live ma message la ko audio liiroo sax audio soo ko woo nga dem dugg ca live ba mu ne ma man dinaa live Pendo Guissé dina ñëw ku ci ñëwul dama ne la yéen dugg ci soko yéen a dugg ci soko lu ngeen dugg na ngeen ko def da leen a xamal dara da leen a lu mën a teg moo tax ngeen dugg wax par force waaw kon baax na baax na waaw. waaw. ma ñëw ba courant Cambérène ma taal sama connexion. waaw sama xar benn sama benn copine sax ku may àndal moom moo téléphone dama yow loo jotee kii lan moo xew. maa ngi ko lu xew fan. mu ne ma TikTok baa ngi toj man ko lu tax mu ne ma su ko mi ngi lay saaka ndax nee na dafa dafa woo ajimaas ajimaas dugg xaw ma fan. waaw mais da ngaa waroon a am fulla ba nga déggee loolu waroo war a dugg waroo war a dugg mais da ngaa ragal da ngay bañ mu saaga la xamal lim lim la xamal mu génne ko yow li nga seqal man seqoo koog sa ko ngay dugg ci live dama la doon avertir ne bu la nit di teg ci live parce que man xam naa la moo tax ma koy wax woowu ma la pour dugal la ci live njëkkante wu ma ak sa ko xaw ma li nga jotee yow léegi yow def nga ko dugg nga ci live wax nga ay bal wax la nga sentir parce que dañ laa napp dañ ne la boo duggul ma nangam tam sa day loolu la la soo ko wax benn ma ñëpp a gisee daal boo dugg ci live bi man nangam sa ndey yow ak aji maas adduna bépp ngi seetaan huit mille personnes lii la waaw kay. waaw. yow mu mu teg la live ngay tara lay di wax ñàkkal sa bopp fay na baax ragal loo daf ne la soko daf ne la soo waxul ma génnee audio yi nangam daan sa ndey def nangam nangam nga commencé wax nag commencé taralari mu naan la Adama la ma gënal Adama laa nangam ngay ta ma bàyyi dara ma ba ko ñaata yoon dama fa daan dugg na fi génn na fi soko nag yaag Mamy Camara da ngeen xuloo ma ne ko ma ne muy bi sama boutique bi ci dem yëgal naa ko su ñëwul nag loolu am yaa ngi dégg mm-hmm. waaye ñu ñëw dama leen di gërëm dama leen di sant mm-hmm. ndax Mamy Diallo sama kër la doon ko neexoon mu ne am na fu mu dëkk bu ko neexoon mu ne moom mën na da nga ne Mamy Camara dafa foo da maa ko wax maa ko wax waaw kay pare mu naan la maa la gënal aadama nga nekk fa di wax naan ko yow li ma séq ak yow séqaguma ko ak aadama séquma ko lépp seetaan naa ko aji maas non non dama ni ko ma ne ko baraat ba mu xamee ni dafa faux dama ko bàyyi. dama ne la déglu ma rek fii mënoo fee wuy ma mënoo feex diversion yu wëlbatiku boo fi mënut a wax lu leer déglu ma rek xam nga ah man wuy ma man duma sogoni man duma fi nekk di commencé live bi di la woote déedéet yow xam nga ma. barki Serigne Babacar si bu fekkee moroomu Sokola yàlla naa dee bu 23 si nga koy xam. billahi barki alquranu karim. non eh booy Kapo. waaw kay dama dama ne la aji maas aji maas. dëggul Kappo Kappo dëggul. toog ñun loolu ci groupe la dafa yàgg. man ak ñoom ak man Ndiaye ak man sant bu xam naa dama xàmmeetul léegi ndax léegi dama xeesal. waxoo ko fee de. ko ah. naan nga. fee de da ngaa wax ne soko soko soko li nga seq moom seqoo ko man. Kappo nit da ngay am. Eh, waxoo ko fee de man dëggul Kappo. Kappo Adima dama dama bëgg dama bëgg affaire bi ah, kii la woo clair. kon ma Adima wusu ma wuyu ma dëggul ma wuyu ma Adima jigéen ju baax la. comprendre nga. yow dafa xam ne yow su ma seetloo nga moo tax mu ñëw ci man envers moi. non non dem su ñëwoon ci man su waxoon déglu ma dafa daan su. mais su boole ma yaakaar ma bokk benn baay bi. waaw c'est normal ma dem ci moom la sa xarit la. woo na ma léegi waaw waaw déglu ma su ma gisee. woo na ma léegi ñoom ñëpp woo na yow xam nga ku la bañ man dama woon saaga ndax yow su ma. waaye waaw dama daan maa gën a dof ko foofu. waaw waaw dafa rànkaaju rek. man dama bëgg mooy ci ma ñu ñëw man su ma nee dama ne àdduna moo commencé. waaw yaa ngi wax ak man maa ngi la tontu li ma la tontu c'est clair et net ni la carrément man duma yàq kenn nga wëlbatikuwaat ni man sama taat yi ci biti man daal vraiment mais amul problème parce que man li ñu ma Viviane waxoon rek man loolu laa jàpp bu leen xulooti ci àddina te dootuma joteeg yow ci àddina nan nekk ci jàmm. waaw te yow nga dem ne Mamy Cobra dafa ñëwoon sa kër pour cagatu nan ñëw. waru ko rëy. barki alxuraan kay benn affaire képp ku ñëw ni la man dama kenn ko Mamy Camara nangam tey mais yow Mamy Camara même mu dara mais xam nga lan fan nga defee erreur a ah. fëkkatal naan la a wax sax daa foog naa ne tiital na la non ma ma ñëw na la te xam naa ne da ngay bañ ko saaga sa yaay gi ndax da ngaa bëgg sa yaay yaa ngi dégg man xam naa loolu lépp moo tax nga jaar foofu wax la ngay wax mais Mamy Camara bu déparé Thiès ñëw Thiès moom départ noonu ñëw Thiès rek ñëw ci yow am na lu ko fa indi te am na lu tax mu ñëw fa may ma ñëw rek may non may ma ma ñëw rek xam nga ma mi du seeti nit ci lu ah. ñàkk fayda xam naa li tax ah. man mii xam naa li tax mu ñëw fa ak lan moo ko indi Thiès loolu jarul leeral ci live parce que man bu ma la baalee rek bal naa la mais man lépp xam naa ko waaw kay waaw waaw kay kon kon da da nga da nga juum li da ngaa juum da ngaa def erreur man daal dinaa bàyyi mu sedd dinaa la jéggal barki Serigne Babacar kan si mais live sa ko moom bu ma la fa gisatee ngay wax wala mu wala dina dugal ci live aji mas Viviane bu doon woote ngóor mbiisu ngóore di woote lay jaaj di woote sax duma la baal lii moom léegi laa la koy wax dinaa bàyyi nag. waaw mais gindil photo Cheikh Abdou Karim. baax na baax na ba pare xoolal wuy ma déglu ma. waaw. allo. maa ngi dégg waaw dimanche a na nangam ko bara barke Cheikh ah, Abdou Karim dafa ñaaw de yow da ngaa foogeeg yooyu wurul xam moo tax déglu ma rek mhm. nga ni ñun ñëpp ñoo far waaw keroog ba may def couverture boutique bi fii ci boutique bi laa nekk di waxee ak yow maam ah. Ndiaye fii la ñëw mhm. fantam bu fii la ñëw man ko bara du wax ni man woo ma ko waxee woo ma ko dama ne la a rafet dëgg la léegi ma seet ak ñoom seet ko Seydina Mohamed mhm. maa ngi jéggul Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp Euh, dama rus nag dama rus torop torop torop dama rus euh, dama am lu ma metti trop tamit waaye sant yàlla rek ndax wax dëgg yàlla ñu taf sa nawle war cee wax lu baax lu ne nga wax ko ci yàlla du seetaan barki Seydina Mohamed li ma la wax sànq rek naroon naa tamit génnee kaamin taxaw ci digg penc waat ndax dañ ne xaw ma bu waxee waate yor kaamin su ko weddee ma tasaare lépp. ma naroon na def loolu samay mbokk ne ma du ci dal samay am di jàmm ne ma du ci dal samay xarit ne ma du ci dal te dama leen a déggal ndax communication bu maal dafa am ba pare te yenn bu yàggee ñàkk fay dëgg dëgg sax lay ndur te fi mu toll nii sama xol moom beneen mami la ñuy gis ndax mami bu njëkk ba daan raay raayal déedéet fi mu toll nii mami 2013 2014 ba 2019 kooku boobu mami la ñuy gis ndax sama xol dafa yàqu. Euh, te li ma gën a li ma gën a li ma gën a bëgg a wax rek mooy coow li coow li man la riir bi riir bi man la lii rek moo génn Adamo waaye bu soo ko waxoon nga dar sa gémmañ te dina gën a dañoo xamul ne yéen seen tiktok bi lubi la rek cirque la rek te yow ak soko doo leen réeroo ci dara yow ak soko daanaka yéen a yam rek li ngeen di def xëy na yow li nga fi Euh, ak li ngay wax ak li ngay def ak li ngay dindi du ci sax fekk su ko ndax moom day xëy liggéeyi mais may wax rek nii euh, sama xol yàqu na yàqu goo xam ne li ma bëgg a wax sax damay bañ wax wax lu liggéey moom day xëy di wër mbedd yi di wéy mbedd Barcelone yi deful tus soo moom jurul rafetal jurul nempal li ma gën a métti ak moom li nga jigéenam taf ko. waaw gën tant que jigéen. Mm-hmm. woote wax lu rafet. loolu lu baax. Mm-hmm. nga wax lu baax. mais message xarit la kooku kenn du ku ñuy xaawi sagam kooku du ku ñuy toroxal ci digg pénc kooku du ku ñuy wax waxam ci digg pénc ndax kooku ku baax la yaakaar la am ci moom bu dugg ci moom man lijjantiwuma sax sama kujje mbokk sàkkamtuma laa kujjëb keneen dafa juum nag fii laa koy daggee bàyyi ko ak yalla te yal na gëna léral yalla nak yalla na sam yalla yalla gëna yal na fay xoli waye di waxtuuma giñ ma tek ci digg pench dama narona genn sank waxna lako naa la ko ma na a yor kamil wat samay mbokk ne ma doo ko def ndax fulaay jaay Dakar ndax lan communication bu mal moko waral waye bu ñepp neewon tek rek bu boba damay genn satal sama bop ndax lu way am ci man di ko genné su nit amon ci man dara da koy genné parce sayidina Muhammad su nit amoon si man audio bu tar fatal ay ni da koy génne su nit amoon si man lu ñaaw da koy génne ndax ke taf sa ndey sosal sa maam sosal sa ndey kooku dese la tula dara ci àddina waaye yàlla dina gën a leeral lépp ñaar rek feeñ tey ñaar rek ñoo feeñ Adamo dama sonnal sama yaay dama daj lu ne dama changé moo tax may maslaa bu loo wax ma jooy waaye gànk gi ma doon macha allah yal na ump internet Thiès xam nañ li may wax te Thiès kaay dugul kat dëkku fi mankan dëkku fi maa ciip dëkku fi alafint dëkku fi borom joma fi dëkk borom fayda borom personnalité borom dignité dem naa ba sama personnalité wàcc ndaxu maslaa li may maslaa du ñàkk fayda du ragal waaye dama xam ne àddina amul benn solo man foofu rek laa ko jàppoon waaye xool naa ba xool sunu milieu bi nangam tànnan tey ndey la ba keroog jusqu'à la mort sunu bi milieu bu maa la ngi nii sunu milieu bi du milieu gor sunu millier bi milieu bu bon mi ngi nii te bu ma amul woon lu may seet xooluma ci samay fans kon leneen la ñuy waxati waaye konoon kenn waxatu ko ndax lii nii fu ñu tafee sa yaay ca digg penc di ko xas koo xam ne sa yaay nit amul fitu xool amul dara luñ ko waxal ah, sama yaay di sama di faris sama yaay di hmm. noble jur fa ma war tema tema téema téema kenn ku dul sama hmm. ndal juruma sanni hmm. joxewuma joxuma nday joxuma mam joxuma badjan joxuma tanta moma ma yar ci pergala yar ma jox ma ñaari jikko muy jom ful ngor fayda man ma dem ba manke sax ndax lan ko maslaa ni dama ragal ragaluma de ma ragal njees ragal du fi dekk fi la ancien bandi dekk ñu may fenal nan day am jeuker am far ba taxna ma di bakone tasna tas pour nit ñi xamne tasna tas man ma bayyi waye loolu ma genn def sax neexuma waye bobu fen ya bari ci sama nop man may doomu gor gu set wet sama mama sala liñ ko sosal kéro ba muy dee tarkal la hôpital bi la deewee sama mam di gor di noble di faris moy burum wurus jobu jóobu job jóob sëtu la jor job bi sala kooku alaaji Maguette Diop bay maama maa alaaji Maguette Diop moo fondement woon jumaay Touba wu Serigne Touba bi tey ba Serigne Touba seexal sama maam may faari su piir man TikTok sax waruma man jaay sax ak a ŋàlle ŋàlle ak xëccoo waruma. bu ma jooyloo waaye. parce que Cheikh Ahmadou Bamba ma xam samay maam di faari si fii jaxaw sama maam moo daan joxe dépense jaxaw sama maam moo daan dimbali ñi ñàkk ñi jaxaaw sama maama daan ngénte xale yi nga xam ne seen ndey mënu leen a ngénte ba seen bàyyi barke Serigne Fallou ma doon gor juróom-ñaari yoon soo ko deful dara merew ma soko duma ko musa mere ndax def na lu ñaaw rek bon na na ko nettali rek ak ña koy inventé ndax buñ ko doon nettali li am waaye man damay dund gauche soo ko di nettali droite ndax ña koy nettali baaxuñu bu ñu baaxoon dëgg rek lañ koy wax bu ñu ko waxee dëgg dëgg lu baax rek lay dégg ndax moom moom ñàkk xam ci man a tax mu wër di laajte ji bu xamoon ci man lu bon du ko war di ko laajte ji kon wax ji farankolaay na amatuma lu ma wax lu dul di baalu ak sénégalais ndax aadamoo damaa dem ba dama manqué manqué wu ma ragaluma xam nga lu ma daloon ngor akub maslaa waaye maslaa dina la yóbbee manqué dina la yóbbee ñàkk fayda tamay doomu Cees di doomu Jolof di doomu masala tubar fa kàlla juddoo Cees màggee Cees du ma juddu jéeri du ma madanta ci réew mi laa dëkk am mbokk yi baax mbokk noble mbokk riis Cees fii ku fi dëkk doo duul kat doo alafint doo paax ndoox waaye soo dee maslaa faaw nga maslaa ndax àddina des koy suukar ba mu baax da ngay maslaa ba naan daa naa fekk da ngay maslaa nam, naan dafa fumiste da ngay maslaa ba naan dangaa dangaa na. duma kuus maan daf ma ubbi juróom raay dugal yëngat sax tabar fakkan la ma sama sër sama nday yorlu ne sama baay yorlu ne ma di sama bopp pour amal sama bop, ndax mak day dik. ëllëg du añ du reer du lu jara sedd la ma takk sama ndigg rek bu ma amee soxla sax sama sukk ko xam tabar fakkan Damai damay dem xew kenn du gis ma takk sama takkaayu yaay ndax lan am am lu ma bëgg man te sama yaay mi ngeeg lu ne samay maama ngeeg lu ne samay tàntaa ngeeg lu ne ku ma ci fëgg sa kër wax sama soxla kon du jar ma nekk TikTok waaye sama jom gee ma sonal sama ngor gee ma sonal sama fulla gee ma sonal sama fayda gee ma sonal sama diin gee ma sonal macha allah buñ ne aji maas waxal waxul du wax dara buñ ne pendoo du wax dara buñ ne keneen ak keneen du wax dara ndax du ma jëw du ma fenn ma wax lu sama yoon nekkul waaye kan tak Pendo sama mak la duma ñew ci digg penc nan wa Pendo ba ma wowe Pendo ba duma ko def ndax gor la ta dafa am nawle te day sey don jek don nit ku bax mako bal ci xol bu sedd guuy na wax lu ko neex bal nako sank ba tay ñi ñang may wo demal si biir criminal dig fi kay fi dew ma police dew ma fenn maa bàyyi lépp loxo yalla bal na ñëpp barke Cheikh Ahmadou Bamba bu de Serigne Fallou rek la bëgg ma bal ñëpp waye nañ japp ni mami bu bu bu rek du dafa ñak kess legi wala dafa rew wala dafa li déedéet ndax yena taxaw ci digg pench ne dama manké manqué wu ma ta daño yak sama xol nak ci digg pench ndax dañoo laal laalaake laal koo xam ne tubar fakkal la école sœur lama duggal dugal di ma dugal ci école di ma sama yaay nga end sama yaay nga nigeria sama yaay nga Cameroun serigne bu mu tok sama jëm ji tax sama rak sonaluñ ko kenn sonaluko barke serigne Fallu mak sama jëm ji do nga ko sonal une semaine yàlla sama yaay parfois daf may xool bëtu yërmande yoo xam ne waaye damay sant ndax am na ñoo xam ne a ngi dund yaay sama yaay ngi ñëw sama place sama yaay ngi ñëw sama wet sama yaay may neng nengal sama yaay te xoolal ñu koy taf di ko wax. man ak moom Pendo Guissé lan la lan moo ko jaral loolu plénaire mu woo ko naan ko nangam sangam ndax man def na ma nangam sangam. te jotee woon ñoom dara wax naa ko de. noo bokk sunu ndey noo bokk sunu baay waaye jigéen ñun ñëpp nit nit moo ma woowee a la de ne aji maax de barki sëriñ yàlla musal yàlla ñaar sax maa ngi ko fi takkal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant naa ñëpp surtout waa Thiès nag waa Thiès yéen ñëpp sant naa leen te live bi nii laay waxee de su ma taalee sama live damay ambiance liggéey sama liggéey aw ma jotu loolu te yéen ñii may woo naan ma police gendarmerie demal fii demal faa daw ma fenn aw ma jotu lenn ci digg penc la xewee yàlla leeral lépp ci digg penc te leneen ak leneen dina ci xew te gis nga coow lii bis buñ ko fayul leneen ak leneen dina ci juddu li maa leen ko wax ndax Adamo mii dara safu ko soo ko mee dara safu ko seen téléphone lañ yor la ñu mel mel nañ ko ba pare la am am nañ ko ba pare muy Adamo eh, muy soko la ñu mel mel nañ ko ba pare waaye ñun ñii jigéen nañu defaraat suñu toogaay xam li ñuy wax xam li ñuy def àdduna du nii lii mm. ñaaw na torop mm. barke Seydina Muhammad mm. waaye baal naa ñëpp te na ma ñëpp baal àq Mhm. ku ma ci wax wax ju dérange rek maa ngi lay ñaan nga baal ma àq. Adamo nag maa ngi lay sant te santuma la man kese.